ay ñu ngi leen nuyu di leen ziar yéen ñi nga xam ne yéenay suivre Rmo Sport ñu ñëw ci li ngeen li nga xam ne mooy chaîne vidéo onze départ pour match Sénégal ak Algérie mu mu war a am demee dix-neuf heures fële ca Diamniadio def nañ première partie bi wax ci défenseurs yi ku ko bëgg a gis da ngay dem xool suñu vidéo bi njëkk def tey euh, ci onze probable wax ci deuxième partie bi muy milieu terrain bi da ngeen xool deuxième vidéo bi topp ci onze probable bi. instant yi ñu ngi ci troisième vidéo pour mën a wax ci attaque bi kon vidéo boobu jëlum yu gudd ndax attaque bi du compliqué lool ndax doom benn dute li ñuy joxe yaakaar nañu analyse bu mu sens loolu lay teg mais laataa yu ñëw ci loolu dañuy wax yéen ñi gan ci bile page yi ngeen abonné te ngeen bës si cloche de notification bi pour ngeen am suñu ay vidéo au fii ci Remo Sport ñu ñëw ci li nga xam ne mooy suñu vidéo continuer euh, ci troisième vidéo bi ci attaque bi onze probable bi attaque bi Sadio Mané kenn amu ciy dute benn excentre moo ci nekk mooy excentre gauche bi Euh, euh, beneen centre droite bi Ismaïla Sarr moo fa nekk kenn waroon na jóg tuuti mais Ismaïla Sarr daa blessé kon da nga indi ki xam ne mooy Iliman Ndiaye malgré euh, début saison xaw na compliqué mais nag bu ñu xoolee match yi mujj ci Sénégal profil bi mu wane profil bi exceptionnel la du neex a génne ci onze départ bi kon mooy taxaw ndax amul kenn ko fi indi ku dul Iliman Ndiaye ndax ña fa nekk ñëpp mooy ndax football te mën nga nekk club mag te tamit lu mën tam mi ngi mën a mi ngi mastaay di titulaire kon am na temps de jeu doy ak central bi nekk la jox son la kenn du ci ndax mi ngi ci championnat bu mag bi gën a mag ci Europe nekk ci club bu mag mi Chelsea ba pare ba saison bi commencé léegi mi ngi titulaire dugal na bi def ay max yu réeré bu waaye Chelsea di yéemu ci xale bi kon moom mooy départ kon Habib Diallo day xaar ak yeneen gars yi kon jàpp nañu loolu daal la ngi bi yéen am ngeen droit jox seen xalaat bi ngeen abonné ngeen commentaire ngeen ñu seen ay cœur ngeen di jamais ndax loolu dañuy gën a a dooleel dañoo mën a pousse ndax dañoo bëgg a atteindre maximum 40 euh, 000 abonnés euh, balaa ko arrivé ñëw te loolu ngir fogg ni partation ay lié ci ñu mëna doole ba tax ñu gëna mëna avancer bu baax ci liggéey bi nga xamne suñu passion la suñu bëgg bëgg la